ku am cofeel ci yow la ma ne ko bala nga ko doon xam nga gisoon ko keroog ci dëju góor gi waaw am na oto am na it ay njaboot yu am oto mais nanguwul dugg lu dul sama oto fu ma jëm ñooy ànd fekk na loolu waxuma la sunu diggante mais ci góor gi laa ko jële moo ma daan wax ni ma mu sëf ma ne ko labbayka mu ne ma sama turandoo bu sëriñ Mansour ku baax la waaw jamono bu ne mu ngi jaar fii di yóbbante ci man waaw fa tabaarakallaahu ma defe kon nag loolu dundal ko duñ ci topp nit ñi dañ ciy seet sunu warugar rekk ñu def ko loolu rek laa ne woon bu ma ñëwee ñu sànni ko nit ñi xëy na beneen yoon sax mën nañu def yeneen waxtaan waaye tey tey la tey waaw dafa am lu war ci bés bi mënoon na bàyyi soxna dabak soxna ka ñu waxtaane ngoon gi waaye seen xol dafa fees bu ko defee kon nag bala ñuy tëj ñaan sëriñu saam rekk mook Pape Malick ñu bégal njaboot ji bu ñu paree nag ñu soog a seet lu ciy teg rek pour yeewi nit ñi mais xam naa nit ñi duñu doyal waaw xam naa ni duñu doyal bu ñu sañoon nga fanaan ak ñoom ba ëllëg waaye yoon yemul ci benn dinaa ñëwaat yeneen kon nag yéen ci dégg waaw ñi ci des ñëpp nañu dem ñibbi waaw Fatima nga jël sa yaay ak ngeen dem ñibbi waaw dafa am ku moomee fii tey incha allah ko dégg waaw kon nag boo jegee wutal ma ci ay ci bokk bismillah allah kon nag sa sëriñ sam bismillah salaamaaleykum si ya cheikhana ya ahmad tijaani xutbal wujud juudi wa ni'matal akwaani Sëriñ Babacar Si neena Siid Ahmad Tijaani yaa raaxilan mutasaabiqa rukbaani naxwal jinaani rawxi wa rayxaani sëriñ bi moo santaane woon ni naa bàyyi xaaju moo tax fan yii nii laay waxee adil ulukata min asiri alaqatin qaasil hawaajisi muddatal azmaani sayd ahmad attijaani addil bayaana li ahliha mutasaayifan bilwaafidiina wa jumlati sukkaani cheikhu tijaani لولا المقادير الحكيم إلهنا عرفوا بما أحوي بهذا الشان شيخنا التيجاني لا تقصرن توسلا وتضرعا وترفقا بالعين والتيجان سلمى وصلوا زيادة بتقرب كذوي الغرابة ساحق الأوطان شيخنا التيجاني بحر تموج قعره ويفيد من إذن المهيمن بارع الأكوان يغني القواصد إذ أطوا للالئ متزاحم الأصداف والمرجان يوح بدت تعي الورى bitaayin min kulli naain yaa daba waa dëgg la dëgg la Cheikhuna Tijaani Cheikhuna Tijaani yugnil qawaasida is ataw lila aaliin متزاحم الأصداف والمرجان شيخ تيجاني وتشعشعت أضواؤها وشعاعها وتعم بالأقطار والبلدان سمام بابا كرنينا كم شاهدت عين الحقيقة عينه وتكشفت عن فتحه النوراني هذا الذي إنسان عين حقيقة متصرفا بحقائق العرفان هذا الذي كان الممد وحائلا بيت الولاية فاتح البيبان هذا الذي قد نال رضوان العلي بمنزل الآيات من قرآن وحوى بمرضاة العليم بسبعه من مقتدى القرآن والفرقان ختم الولاية ما خفى أمر به ختم النبوة جده والعاني شيخنا التيجاني سمن بابا كرنين هو مجمع البحرين عين عناية bi wiraasatin min min xaqi rahmaani cheikhu tijaani wa tawaatarat rutabun lahu min baadi ma rutabin bila xasrin wala kitmaani huwa ahmadu bnu muhammadin najlil walil muxtaari najlil jaddi ahmada daani هذا سليل محمد ذا سالم حقا أبوه وقدوة الأزمان هو قدوة هو رغبة هو عهدة هو عمدة هو تحفة الإخوان هو رحمة وهداية وكفاية ومزية هو نحلة الإنسان قد قصه المولى طريق شفاة يكفي السلوك بي عن البرهان هذا رسول الله يوم منزله متقلدا بالحق والبرهان هذا رسول الله يوم يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان هذا رسول الله يوم نزوله هذا رسول لله نزوله هذا رسول الله يوم نزوله هذا رسول الله يوم نزوله هذا رسول الله لله يوم نزوله متقلبا بالحق والبرهان متبسما فرحا بسف ملائك بسطوا إليك أكفهم بتفاني يتلقى